Euh, taïm mu def 20 euh, euh, questions orales exactement jëmale ko sur le nouveau gouvernement aduna jëm ci wàllu éducation bi surtout aussi si enseignants yi nga xam ni itam dañuy faral sur le secteur de la santé aussi aduna si jëmale et d'autres et d'autres là na pàcc bu nek si li nga que nekk moo di si walu fi Sénégal suñu quotidien exactement lan na di jàpp ni est-ce que Marie Sagna sorti bi nga xamni tam def encore une fois on fait si une question mais, je viens de te dire que s'il y a quelqu'un que je respecte au Sénégal, que j'admire, que mm. j'aime beaucoup, c'est mon ami Guy Marissagna. Vous savez, Mamou, on a des relations très particulières de, de, de, respect. Euh, parfois, nous avons des causes, nous peut-être beaucoup de formes. Mais en tout cas, nous avons des Mom, yap yep melon res ken du soxla paga mm. bu yap yep melon res nous du soxla paga parce que voilà quelqu'un bo il a donné sa vie pour le Sénégal en terme d' pour man guy sax boo ñëwee rond-point assemblée dañ fa war a def monument guy pour symboliser li nga xam ni mooy la représentativité guy au-delà de son humilité de sa disponibilité pour son pays man mi bokk naa si ñi tax mu nekk député parce que dama doon toog télé ñu invité ko ma ne ko jàmbaar danga war a dem nekk député xaw ma nag gémmiñ bu am barke parce que boobu li ma gisoon mooy bu nekkee député loolu dina ko aar ci koy parce que dina am l'immunité parlementaire. japonais euh, qu'en est-il pour pour un poste de DG pour gouvernement donc. assemblée nationale peut-être bàyyi ma eggali. Hein? bàyyi ma eggali foo mën a servir ce réew. allez-y mën nga député servir ce réew. suba mën na nekk euh, président assemblée nationale wala beneen cër et puis bu ñu ko joxee direction mën ko doxal parce que guy loolu la jàng. mbiru social la jang, hmm. guy il sort de l'NDS. n'oubliez pas que guy c'est un travailleur social.

alors nous avons ni ces questions c'est peut-être pour préparer indirectement le nouveau régime surtout Ousmane Sonko sa politique générale se si à nationale pour nous pour à toutes ces éventualités. oui mais dans la déclaration de politique générale ce qu'on regarde surtout moi, la prise en compte de toutes les questions liées au bien-être des Sénégalais. Mais mm. boo ko la euh, situation de bi ci domaine a dafa am ay ont fait des nag les sax bu lay diagnostiquer mu diagnostiqué nag ba pare doo nga xam euh, fu nekk ban solution la ci war a apporter ak nan la koy doxee et puis solution yi mënul nekk solution immédiat am na ay solution yoo mën a jël dans le court terme mais am na yoo xamante ni dafa laaj liggéey boo xam ni dafa ànd ak temps bi nga xamante ni moom nga ci war a def ak hmm. jumtukaay yi ciy dem ak yan ressources humaines moo ci dem donc hmm. pour man tout est prioritaire dans ce pays te Sénégal premier programme mooy se nourrir se loger s'éduquer et se soigner il faut ñu am faju bo xam day day muccu ay plateau technique yu relevé nit ñi am accès à la santé moy les services sociaux de base nga mëna am sa doom mëna jang normalement fekk jàng bi dina nekk ci qualité hmm. euh, nga mëna dund dund bi mu mu descend manam li ngay am nga mën cee dund nga mën cee suturlu nga mëna am fo dëkk mëna am fo fanan donc pour ñun priorité yoy lool moy priorité yi nga xam c'est essentiel et bu fekkee ni nag nit ñi amuñu ci condition yooyu dafay xaw metti donc pour man lolu dafa nekk loo xam ni lu et puis foofu lañ koy xaar et mm. puis euh, voilà donc pour man ñi nga xamni jog nañ nak pour am yene réew mi naat ah ñooñ seen xol dina sedd mais ñi nga xamante ne ñom ñoom euh, lekkoo si ndab ci xep sou pour mu xajam am na ñoo xam seen projet loolu mo leen tax donc il faudra faire focus sur quels sont les résultats et quel sera l'impact économique et social sur la vie des Sénégalais pour man c'est ce qui est a plus important alors euh, c'est clair euh, cher Omar ñu bataille ba tey suñu waxtaan exactement euh, deseni ba bataille, c'est euh, question yi nga xam itam le nouveau régime mu koy daal jëlee ni dans sens jéem nag coow li newoon na cour ñu ne ba suñu yeewee tey dinañ am exactement par rapport à li nga xam ne que moo la baisse <laughs> alors tey ñu euh, seetlu ni defarkatu mburu yi et tant d'autres et tant d'autres mu jëneen daal di accordé par rapport ak ces décisions yi nga xam ni itam gouvernement bi jël na ko allant dans ce sens exactement alors aujourd'hui nous avons établi état bi nous menacé ñuy peut-être nous avons na dajale exactement exactement situation des consommateurs du euh, Sénégal nous avons sax ki nga xam euh, euh, exactement le compte pied comment le comprendre concrètement cher bah xam gars Machiavel le prince il faut avoir une main de fer dans gant de velours il faudra le faire s'il faut caresser il faut caresser et s'il faut taper il faudra taper mm. on a besoin d'un état fort qui exerce toute sa plénitude avec beaucoup d'autorité surtout je crois que l'état bi ci taxawaay boobu moi je ne peux que les féliciter parce que les sénégalais dañu sonn quoi jàmbaar mais ñu ne état bi def na ko si oto bi oto yi ñi nga xamante ni dañoo laal seen intérêt rek ñooy wax mais sénégalais de manière générale nous avons approuvé da nga doon ñëw bu màggal jotee ñu jël paas yi multiplier ko par trois kii dem di dugg ci njaganjaay bi wala ci cette place bi bu amoon li ko gënal dina ci dugg nga foog ku amoon lu la gënal da nga yor sa oto am loo defee plein mais sénégalais yi nga xam ni moyen yi muy dundee. tabaski jot nga war a jóge fii dem ca dëkk pour dem julli parce que bis boobu nga am pour gisanteeg sa njaboot nga ñëw ñu jël paas multiplier ko par trois ci nu mu leen neexee ko ci no man's land ci mel ni ñun amuñu état état ne la defal nga ne doo def état bu am ful la da dem jëli ay Dakar dem dikk ñëw daaj ko wàññi prix def 3000 nit ñi yéeg transport demoon na ba ay 15000 ay 20000 pour lan. Donc état état def après des gens se lèvent waaw syndicat des transporteurs seen lobbying la ak seen intérêt est-ce que dañu war privilégier l'intérêt collectif hmm. wala dañu privilégier l'intérêt d'un groupuscule wala de lobby c'est ça la grande question donc si l'état le fait on peut que s'en féliciter ñu ñëwati fii l'état corse les choses daal ma ne waaye pas na leen poñe na leen ndacc xaw nañoo rey sénégalais yi nañ ñëw ci li ngay wax mburu man naka jeeg xamoon naa ni jomaa dina wàññi mburu mu xaw lu mu dul réglé waaye mburu dina ko <laughs> parce que séeréer yi ak mburu c'est une histoire d'amour jomaay même su fekkee <laughs> surveillé wuñ ko sax soo mootul drapeau Sénégal bi te mu def ci mburu à la place étoile donc euh, séeréer ak mburu moom seen une histoire mais en tout cas mm. euh, est-ce que nu on va continuer ñu ñuy pressé juróom-juróom yooyu ñu ci waaj bu ko xeeb